أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen آه، téléspectateur نور Sam TV ñu ngi leen di nuyu آه، di leen ziyaara tey ñu ngi fii ci Euh, buñ ko tuddee xel yépp dem mbaaleen ngir lan maamam sëñ alim kan gor yàlla nga xam ni mooy maam tey nag ñu ñëw këram ngir sëkk ak moom jotaay ngir lan dégg gu ko nit ñi di dégg ak xam-xam bi ko yàlla nga xam ni géej la ci wàllu lasraar waaye mu doon ku yàlla dimbali ci wàllu ñaan fu nit di fa bàyyi ko di ñëw di ko setsi tey nag mu may nu ci waxtoom may nu ci taawam ngir lan partager nit ñi nga xam ni ñu ngi topp ay jotaayam ci seen bii nga xam ni mooy Nourou Lassane TV tey nag waroon na waxtaane loo xam ni ay gan waaye waaye waaye te diglu seen Ousmane euh, Sam Nourou la te daal di ngeen dégg loo xam ni waaye waaye waaye waaye bu ñu ko sekkee man ak moom xam-xam dina génn sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu suma salaatu wa salaam ala asrafil xalq sayidina wa nabiyina muhammad alayhi salaatu wa salaam rabbana atimim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel mbokk jullit yëpp ak fu ñu mën di nekk mbooleem koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla dolli la iman yàlla dolli taw tawfeex foofu nga nekk di ziyaare ñépp nag di wax asalaamaaleykum Baye Modou ñu ngi lay ziyaar bu baax si Ousmane ñu ngi lay fay euh, dama bëgg bala maa dugg ci wàllu euh, xam bi tey euh, sëñ Ousmane cosaanam ak fu mu jàngee jërëjëf Baye ñu ngi lay ziyaar bu baax macha allah di rafetlu kàddu yi nga xamante ni ubbee ko muy kàddu yu am solo mm-hmm. Euh, sëñ Ousmane bu koy wax moom mi ngi euh, bàyyi ko dëkk bu ñuy wax Mbaleen bokk ci njabootu sëriñ Aliou Kane Mbaleen euh, sëriñ Aliou Kane nag ku ko wax wax jàmbaari islam joo xamante ni da doon liggéey yàlla ba yàlla fay ko defal ko xam-xam may ko njaboot bu barkeel mm-hmm. ci njaboot googu la bokk yàlla dogal tamit bokk nañ ci ndaw ñi nga xamante ni ويجري لنا على جل يوم لنا يجاني القرآن بوضع القرآن يوم لنا يجاني تمت وضع فن قم قمي يوم لنا قم قمي يوم خم خم فق قم قمي يوم خم خم تصوف يا الله دعوني يجاني علم لغة بيجاني علم نحو يا الله دعوني يجاني علم عرب يجاني خير خم خم يجيب وين غرامتنا الله سبحانه وتعالى خمتني ñu ah, gëssu ko waaye loolu yëpp génnuñu sénégal li ci gën a bari bude ci xam-xamu fiqh bi ak tasawuf bi tawhid wa yeneen xam-xam yi ñuy wax lasraar li ci gëna bari mom ñu ko jàngé ci yenn ci dëkk yi am na ci yoom Mauritanie lañ ko jàngé am ci yoom ñu ko jàngé ci àll bi Côte d'Ivoire Mali wa ci dëkk yi fasante ko daal bay muur so Ousmane daal mu ngi bokk ci famille bi ñu wax famille Mbaalen wa ka signal yi kan Mbaalen ta ku tuddu signal yi kan tuddu sëñ mooy sëñ mooy njar jàmbaare Sara Fall moom sëñ Ousmane foofu si Ousmane foofu la bokk yaakaar naa ni loolu leen na ñu nañ kon kii ma dalal tey borom xam-xam la jàng na euh, loolu lu am solo la euh, ci biir euh, laaj bi dafa am loo tudd te te tey moom lu am solo te nit ñu bari di ko def. muy muy lasaraar lan mooy lasaraar. jërëjëf Baye Modou xam-xamu xam-xam bu yaatu. Mhm. damay faral di wax wax xam lasaraar. ak foo mën a bokk xam-xam bu ñuy jàng la moom la sax dañ koy jàng weddiwul may am na nag waaye li ñuy wax xam-xamu ilmu xawaatim nga tàmbale ko ci xam-xamu xasaali imaamu xasaali muy xasaan xasaali mm-hmm. ñëw ci ilmu xawaatimu kunti nga xam dem bu dee musalla xasaali dem na ba 32 musallas neuf yee gën a siiw ñu bari moom lañu xam dem na ba 32 musallas mm-hmm. soo ko jàngee ba pare mm-hmm. dangaa war a jàng li ñuy wax kunti yu su dee kunti yu musallasam dem na ba waaye dem na ba quatorze huit yee gën a siiw su dee ci wàllu xawaati musallas euh, ilmu kunti yu euh, ñoo nekk noonu mm-hmm. mu rab day nekk musallas xaali wasat mm-hmm. bayt day am bayti xaal bu dee musallas xasaal yi du am bayti xaal musallas moo ñaare lay doon ñi ko xam dëgg mën nañ cee def lu ne ndax mu sàll xasaar yi dafa nekk xam-xam boo xamante ni dañuy wax ni ki ko xam euh, bu fekkee ni amul taqwa mën naa la jël àddina hmm? moom mu sàll xasaar yi ndax lépp lay def dafay salbu li ñuy wax rekki noonu lay fale nit waaye noonu lay follee noonu lay dumaa waaye noonu lay defee lu ne moo tax ki koy ki koy jàng ba xam ko war na am éducation bu baax éducation de baax boo xam te dana tax du def ay ay njombe ndax xam-xam la moom boo ko yoree day mel ni suñu borom dalaa jox ci bëgg a def def ndax xaatim bu bu garaaw la mooy musaas tasaani kunti noonu la sax boo ko ci bëggee duma duma léegi léegi nga def ko fexe ba xam turam turu yaayam boo calculé ni mu lay jox nga ko xool tabiam xam ban ban nature la mm-hmm. xam biddiwam ban heure la biddiw bi teew boo daggee musaas bu jàpp musaas tasaani noonu amee xaatim bi ñuy wax murabba xasaal yi ak xaatim bi ñuy wax murabba continu murabba xasaal yi sees du gin la murabba continu sees du gin la mhm. noonu nga koy tax ba dem ci muqamas mu asar mu saman mu saddas ba ci asaraafu bu yóbbu nga dem ba ci ilmu xudaam ak ilmu rawxaan ak ilmu nujum kooku ngay complet nekk seexul asar mais bi yii bu nekkul mën na ñoo ko mais ba tey des na ah kon kon yii nga tudd mhm. nit ki ni tuddee euh, kii def la sara mhm. foofu yii yëpp ma matal ko yii dafa war a ci moom mu complet ndax euh, mag ngi dañuy wax ne xam-xam ñu naan mu ne xaw hmm. boo gisee bay gëstu lépp li baax gëstu ko gëstul lu safaanoo parce que mooy tax bu ëllëgee soo dajee keneen maanaam soo dajee mu bëgg la cee ndax ci safaan bi nga mën ko lii jàng naa ko waaye yar bi ma yar ak taxawoon naa yi moo tax du ma ko def fekk yoo xam nga xam-xam boobu yépp waaye xam-xam lépp dañ ko war a gëstu parce que yow saa salaam moo wax ni ilmu kulli seen afdalu min jahlihi wala wala sihari nee na xam-xam bu mu mën di doon nga xam ko moo gën nga réere ko donte njibaat la fexe ba xam ko. donte njibaat la waaw donte njibaat la fexe ba xam ko. wala wala sihari lépp a ci dugg lu xam ko parce que soo xamee soo ci bëggee wax xeexal ci islam dañ ko man soo ci bëggee wax. Mhm. maanaam pour pour direct xam-xam boobu nan la dañ ci mën a wax. Mhm. waaye nit lu mu xamul mënu wax. lu mu xamul déedéet mënoo ci am wala soo ci soo ci waxee di nga juum indi sa bopp problème moo tax suñu tubaab mi mi ñu yar ñoom dimbali yi nga xam ne suñu tubaab maanaam képp kuy murit éducation de base bi nga xam suñu tubaab moo moo la ko defal daa wax yaa maxsara subbaani in tiftum xaja faqat bi moo taxal maa la xamal neen yow mi nga xam waxambaane nga waxambaane nag mooy koo xam ne am na 18 ans jàpp 30 ans ba 40 suñu tubaab nee na boo ragalee gàcce tiftum in tiftum xajal taxalluma xam-xam wa amal dooga jëf ne lu am xam-xam mu def kon xam-xam la may xamal wax amul làmbatu yi ndax euh, a doon sëriñ déedéet wala wala du neex ah ba ba bala ngaa ci leer boobu Euh, nga ñu leeral euh, ci wàllu euh, yooyu nga xam ni wax nga ko ndeysaan muy doy yoo xam ni kon nit ki moom faaw mu jàng ko mën ko xam mën a doon sayxu lasraar loolu lu am solo la ndax ndax lasraar boppam wala dafa am ci goo xam ne rek foofu ne. lasraar ci laaj bi nga xam te ne laaj ko xam-xamu lasraar. Mhm. ñëpp ko ndax ñëpp ko war a jàng wala ñëpp war ñu koo jàng déedéet ñëpp war ñu koo jàng. Hmm. ñëpp waruñu koo def tamit moom la saa. déedéet du ñëpp a ko war def bu njëkkoon dañ daan askanel ab dëkk wala ak ab kër ni ñi ay ñaankat lañu ñaankatu yàlla lañu. yow saa sara moo ah, ci làmb ñu wu ngeen musuta mooy yàlla xadis bi wér la ci mu taab xadis na làmb ñu wu ngeen musuta mooy yàlla may leen loolu mooy sababu ñaar. Hmm. yonent bi delluwaat ni ñaan moom bu nga ko xamul adduwaaw muxul ibaad yi ñaan mooy yóbbu jaamu yàlla yi nu mel ci ndawam fu sori la ne da nga koy yàq doog koo jot. Mm-hmm. moo tax la ñaan ci biir ndax dafay dëggal jaam bi ni ak moo tax koo dégg mu koy contexte xamul suñu borom yonent bi daal la ñaan yàlla bay ñaan waroo daal wara waroo daal daal daal moom moom yonent bi daa ko bañal ah xolam sa daa ko bañal borom bi si ñu def ci ci ci ci ci cin boo toog xool xasi déggu siiw boobu wala xali waxtaan buli wala idaar loolu ndaw ak yàpp ma ngi dañ ko daan ñaan seen borom waaw dem ci cin waaw kon jaam bi warul dara ci morom ñaan tax ñaan ñaan ñaan lu am du ko war def bu njëkkoon mag ñi dañ la daan yóbbu ba ci àll bi bind benn tur yàlla daal daal koy wax sàlla ko tuuti soo ko mënul ñu effacé ko ba subaa ñu ñëwaat waaye duñ ko guddal ci kii buñ la bala ñu ko def dañuy dem ba seet sa jikko xool la bu baax xam ne yow ndax mat nga koo xam ne nekk nga koo xamante ne ay caaxaan doo ci ak yu bare bare doo ci dugg ñu doon laa jàngal xam-xam boobu ndax daa sa yi ci nekk dafa may daas ñaan nga gis noonu laa may daas. moom ñaan ñaan dafa may daas. daas yu bare ci nag. mais mais mais mais sëñ Ousmane ñii ñaan léegi dafa bari. dafa may daas. parce que bàyyi émotionnel bàyyi loolu. ki ñëw ci yow ñu ne jinne da koo jàpp. yow amoo xam-xamu jinne xamoo xam xamoo ko da ci ba rek am la kursi yu nga fas yéene dañ koy faj te yow amoo basiratul xal bi mën gis. gis jinne yooyu waaw léegi yow noo noo koo ko da gis moo ko nooy fexee nooy fexee ba <laughs> wax lu doy ki ngay faj ba pare mu wàññeeku fàdd sa njaboot yow boo mun soo amul kaaraange après da nga am problème parce que li ko waral mooy tey ji jinne ji mi ngi gis te soo nekkee nag ku jaam mën a jaamu yàlla di nga def ba suñu borom umuri say ñoom bu dul loolu nga tëdd guddi di leen gis su fekkee amoon niveau boobu bala ngaa faj kenn fexeel ba aar bopp aar njaboot doo ko dugg ci faj kon nit ki wuttu jóg dugg ci faj déedéet du ñëpp war a ñaan bàyyi c'est tit tit tit wax ci ñaan mooy premièrement nit ki daa war a takk wallaahi hmm. daa war a ragal yàlla ragal yàlla ci boppam jàng xam-xam buy tax nga ragal yàlla ragal yàlla du mat ci nit ki mukk lu nit ki am amul xam-xamu tawxiid xam si fa yi jaaru ci yàlla melo yi jaaru suñu bor mu melal ko ko xam ne am dafa am ay sifa yoom ay meloom joom dafa joom suñu borom kenn mënu ko koo melal am mooy melo xamante ni suñu borom da ko dafa yooyu da ko war a xam ba nga xam boo jaakaarloo suñu borom mën koo jox war ma ju tax mu mën laa wuyu ndax suñu borom kilifa la boo xamante ni kenn ñimewu ko moom yàlla déedéet ku ko ñime ñimelu xamoo xamoo li ndax nee na bu la laajee ñi am xam-xam mooy mooy mooy neen ñu ragal yàlla inna laa yaxsha min ibaadi ulama suñu borom nee na bu la laajee ñen ñoo am xam-xam neen ñu ragal yàlla ku am xam-xam ragal suñu borom moo tax nit ki premièrement dafa war a am xam-xamu tawxid su amee xam-xamu tawxid nag am xam-xamu tasawuf buy tax jaamu yàlla gi seet la kooku dootul dox ci lasraar kase dafay dem ba nekk sayxu tarbiya sayxu taxlim sayxu tasfiya ni mu lay ñaanale ci suñu borom sa aajo ko noonu la lay mënee àggale ci suñu borom moom moom moom moom moom sëriñ bi. moom sëriñ bi day dem ba moom day dépassé. day dépassé ndax lasaraan yi ba dañ ko tënk ci lasaraan yi ban déedéet yoon bi jëm ci suñu borom lépp ay ay asaraan asaraan mooy jamu sirri mooy ay secret yoo xam dañ ko nëbb lu ñu nëbb lu ñu nëbb lay secret looy gën di dox ci suñu borom moo lay gën di xamal alxuraan bi la gën a xamal tur yàlla yi dina gën a xamal lan mooy yi nga xamante ne boo ko jëfandikoo mu gën a gaaw a sax dox <laughs> loolu mooy la. dafa dafa bari léeg-léeg yii jiitu gaat li nga xam ne dañuy wax ilmu xawaatim ah, ay alaat la ay jumtuwaay la ci nit ki mu amee ko hmm. mooy tax parce que léegi li ñuy wax ilmu <coughs> nujum ci ngay xam ne nit ki ban biddiw la xam ban bis nag nga ko mën a bu dee da ngay dox ci amalu char muy def lu bon ban bi heure lu koy def sooy da ngay def lu baax muy amalu xayr nga xam ban heure def loo xamante ni ci mbaax ak safaan lay dox nga nga dàkk ba loolu mooy xam-xamu ilmu nujum loolu lay jëriñ ak nit ki bu ñëwee nga mën xam kii ban nature la sawara wala ngelaw wala suuf wala li wax ci ci ci nujum. Mm-hmm. Euh, muy muy biddiwu nit mm-hmm. ak nit ki moom euh, safara la war a doon wala suuf. Mm-hmm. wala wala wala wala ndox. Euh, yooyu nga xam ni ci nit ki lay doon. waaw mais mais dama gis léegi léegi. nit dana woo nit. joxul tur waaye tur woo tàmbali wala mu mën a wax maanaam nit ki moom lii biddu eh, safar la wala ndox mi lii est-ce que wér jërëjëf Baye Moro fi nga ñëw nii dafa nekk loo xam te ne lu am solo ci jamono bii la ndax bari na koy wax ci ilmu nujum di ci joxe xam-xamam fekk li muy joxe ci ilmu nujum xam-xam bi des na ndax alxuraan dañuy wa fawqa kulli si ilmin alim mhm. nee na fi nga yem yow fi laa may keneen mu tàmbali fa dem yow yow yow yow sëñ waaw sëñ fi nga jàpp ni fi nga yem yàlla may na keneen ku tàmbalee foofu jeex na ba ci ñun ñii am na koo xam ne moo la fa wax noonu laa dinay dox suñu borom tollale muñu daal bu dee ci wàllu xam-xam yi mu jëm damay déglu ay émission yu bari léeg-léeg nga dégg woote téléphone daal ni masalan mu joxe ni Mouhamad laa tudd waaye nga xool miin gi rek boo jëlee ëxte mun fasasun tënk yooyu alif ga naar yu la xëy bi naar yu miim naar yu taatom taatom bi naar yu faagi naar yu siin bi siin bu tooy naar yu leen bu tooy naar yu bu ko defee bu dee fàllu la wala muhammad wala mu alif mu tàmbalee alif wala mu tàmbalee ha kubéer wala deel bi tooy mun waa naar yu yooyu damay wax ne wéru ah li wér mooy nit ki pour nga xam biddiwam dëgg da ngay jël turam akub santam jël turu yaayam akub santam jigéen rek moo mën a taxaw ni mbaay maa jur góor moom moo tax nit boo ko bëggee jàpp da nga yor tur yaay faw tur yaay bopp boo ko jëlee lim bi mu lay jox nga calcul daa jox benn adat bu la joxee adat bu mu la mënee jox nga koy rafetlu par douze nga koy rafetlu par douze boo rafetlee par douze un ba douze lu ci des nga xool sa tableau di nga xam kii ban tabia la ak ban biddiw la ak ban buruj la di nga xam loolu la ñuy xoolee ilmu ay tënk yu bari la non damay bañ a fay na mais noonu loolu mooy xam-xam bi moom la mooy xam ni léeg-léeg nit comme te ñëw ni diw laa tudd rek waa daal jël commencement tur bi ne nangam la ko ba mën am sant yi sax jëlal seen ñett turu yaay bu dee Omar nga ni Omar ibnu nangam bu dee jigéen nga ni Zeynab bintu nangam calcul xool xool sa tableau xanaa xamoon ni ci wàllu yëngu la ñu nit ki bis bi mu la dikkal doomu aadama dara du asaar bis bi mu dikk ci yow waxoon sa heure rek war ngaa xam ki aajo bi ko tax a ñëw waxtu yu ñëw. bu a a jóg ci wàllu yu ñëw. si Ousmane yaay wax lu doy war de. loolu loolu loolu de dégg ma benn sëñ wax ko. xam-xam bu garaaw la boo ko yoree mën na mën na la ji ñol yi te mënuñu fekk àgg boo sax boo xamee dëgg man ngaa toog fi nga toog nit ñi la sarax nga ko aajo bi nga tax a jóg te yow doo seet doo leen saxaar doo leen sax di xool dara xam ne kii naa moo ko nga xam ne yow waxtu rek lay wan. ñoom lii mooy ni ko li ko tax a jóg te yow doo fekk doo fi nekk sax di di kii moo tax xam-xam la boo xamante ni dafa sew waaw dafa sew ñu bëri dañ may woo wax dëgg yàlla am na ñu bëri maa ngi ci dimbali di leen di leen ci leeral am na yoo xam ne ni euh, gëstu bu bari man na la ko may waaye ndimbalu yàlla lay doon. Hmm. ci wàllu biddiw dafa nekk xam-xam boo xamante ni day moo tax sa xam sax dañuy wax ni ki xamante ni xam na lasaraar te xamul biddiw mi ngi mel ni gumba guy làmbatu. yéen <laughs> tit tit tit moom la boo waxee xam na lasaraar ci xawaatim te xamul parce que léegi ko waral mooy dafa am yoo xamante ni soo ci su la bàyyi bu la seetsee. wala kenn set si la nga fay defal bay am na heure yoo boo ca daggee xaatim bu ko sangoo day tëj du am dara nga ni yàlla nga xam ne moom foo mën a jógee faaw tëju day tëju léeg ko am bay rek lool ñëpp di ko dégg moo fay seeti benn sëriñ rek tëju dara fekk sëriñ bi moo dagg xawaatim boo xam te heure bu mu ko dagg waru ko dagg heure boobu waaye sangoo ko ci heure waru ko ca sangoo day tëju yàlla moo wax ni wëla si jaala sam sa bi yàlla وارحمه نورا وقدره من عسير تعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق نفصل الايات لقوم يعقلون ولا يعلمون سورة يونس سن بام نينا من يالا ما بيد وير ما بيد جانت مو نيك تي يا ام لو ويخ تان ما تا ديف ما ساك وير بي مو نيك نير ديغال وير بي اك ما ديف اي ديكلاس موي ak ay ay waxtu yu yu ndaw nee na loolu li ma gën a amoon mooy li tax na mooy ngir ngeen xam xadada siinin at mi ñaata la ñaata fan la ñaata waxtu la ñaata heure la ñaata bis la wala xisaab ak calcul. ak maanaam kon lépp ci àddina chiffre ci chiffre lay doon. ci chiffre lépp ci chiffre lay doon. mais mais mais li ma déggee nga wax wàllu biddiw kon nit ku ne war naa fexe ba xam biddiwam wala wala loolu doomu aadama bu ne war naa xam biddiwam ak saraxee ca wax. nit ku ne dafa am biddiw am saraxe bu koy def day avancé ak saraxe bu ko defee day aaru am na. ah waaw li commencé ci dimanche ba ci samedi dafa am sept étoiles yoo xam te ne ñoom lay wax nu juumu sayaar dañuy wëndeel. Hmm, ki ci njëkk mooy samsu xamar marix attaque mustari sëxlutu soxal sept biddiw la. c'est yooyu ñooy dox ci euh, juróom-ñaari fan yi di dox ci vingt quatre heures ñooy ànd ak fukki buri ji ak ñaar commencé ci xam sawri jow saw sartaan usu sumbula ba ci sartaan. yooyu ñooy fukki buruj yi ak ñaar ñooy duggante ànd ak dujum sayaare yi nga xam te ni yooyu ñooy duggante la koo gis ñu wax ci àdduna am na ci benn am na am na ci ñaar am na buruj am na lu ñuy wax euh, biddiw su ko defee nag boo dajee rek koo dégg mu naan mënum kenn mënu jàpp daa dajee wéro ku xam ku xam ku xam ku xam ilmu nujum ak xawaatim rek am na lu ñuy wax mu sàmm si wilaaya Moussa Nasrullah ñi ko xam dëgg du Ousmane yaa ngi fee feeñal ngóor de ko xam dëgg Moussa Nasrullah wéttu gin la wéttu waaye moo du xam-xam lasaraar lay lay koo dégg muy wedd lasaraar daa dajee ku ko xamul mais lasaraar lasaraar kat dëgg dëgg dëgg dëgg bu ragal yàlla bu baax bu ragal yàlla bu baax c'est tit tit mbokki téléspectateurs yi tey ñu ngi dalal Serigne Ousmane gis ngeen euh, xeeti xam-xam yi nga xam ni génn na ko wax na ko euh, ngir euh, ndeysaan mu doon xam-xam boo xam ni ku seetaan da nga xam ni kii lu mu wax lu wér la xam naa ne sëriñ si seetaan moom bu ñu noppi moom ñu ngi naan Modou moom balaa pare na sëñ bi joxe numéro feneen fi ma jëm sëñ Ousmane te te te taabaani dem te te jaaxal ñu bare bare bare bare moom jamono na foo xam ni war na sëy sëy muy diggante jëkkër ak jabar bëri na euh, lu ci xew loo xam ni léeg-léeg nga gis euh, ñaar ñu ñu ñu ñu ñu ñu maye jékki-jékki say ba say ba jeex. loolu moom euh, ci jigéen ki la wala ci ku góor ki la wala lan la wala wala wala loolu lan la. jërëjëf Baye Modou dañuy wax ni ginnaaw dogalu bu yàlla. Ah. ndax dañuy wax ni inna allaha ala kulli shay'in qadir lu mën di doon nag yàlla dogal na sëy ak jigéen ki koy def li ci gën a bari maam bi muy takk soxna. parce que taxu koo jóg. Hmm. daa takk pour téye ci ñi ma xam ko ci li ma yaakaar léegi bu ne daa dund ni muy doxee defar si bu bari nga xamante ni sëy boo gis mën nañu ko takk ci weer balaa mat 3 mois wala 1 an mu yàqu li koy dafa bari. Hmm. léegi rawaxaan yu ñàkk ànd dana ko def mooy ñaar ñoo xam ne seen wërsëg àndul sëy boobu ñu fexe ba def. sëy dañ koy seet yi yonent bi saa saam da ko joxe woon dafa xool ne ñett yi boo ci dugg na ko seet na nga ko listixaar mhm. listixaar bi nag moom dafa joxe woon genn ñaar rek mooy bi ngay julli ñaar wàkka yi ñaan yàlla bu gënee ci yow na agsi bu gënul mu soppatu ba mu gën waaye yonent comme jox ne digal listixaar moom ubbil na ñëpp bunt ñi ku ne mën na ko def moom léegi bu dee listixaar am na yu ci mag ñeent yonent bi ne woon sëy sëy mm-hmm. li ñuy wax soxna mm-hmm. ak oto mm-hmm. aku kër yi des koy listixaar wala nga caa dugg ñaan ci yàlla moo woon bala ngay jënd oto bala ngay takk soxna bala ngay tabax sa kër na nga ko xool ba noppi na nga ko listixaar bu bu bu la ci bëgg bëgg rek bëgg déedéet léeg-léeg rek daa di ñëw gis jigéen joo xamante ne rafet na wala jigéen joo gis na ko xamante ne góor nag am na xéwal rek mu xëy tey yombalal ko ko moom dugg ci te sëy bi seetu. Hmm. su ko defee bu fekkee ndaw si dafa am rab mbaa góor gi am rab rab boobu mën na dem ba dox diggante jigéen ki ak góor gi du ñu juboo bu dégg bëccëg dañuy xuloo seen xol di tàng loolu dina koy xam léeg-léeg góor takk jigéen jigéen fekk maa fekk amoon na amoon na mu takk keneen ndaw si mënut a supporter kii dem ci sëriñ dëddale leen séparé leen loolu dina koy xam su boobaa. sëriñ bi nga xamante ne mooy liggéey moom moo lay ñaanal. moo mm-hmm. ñëwee ci moom bu ma dee listixaar ba xool ba xam ne lii la pour mu toj ko day yomb waaye su ko mën nga xam. Mm-hmm. a bind rab dina koy def jigéen ba bu duggee gisee lu yàgg léeg-léeg jigéen yoo xamante ne bu mu duggee gisee jëkkër bi am day nañu fi bataay jigéen ñoo na fi bataay jëkkër ju jëkkër ju am du yàgg. am na ci koo xamante ni ñëw na fii wax ma de am na ñetti jëkkër ñu ñëpp ndeysaan yàlla moom kooku de ndax dana gaaw a seet def lu bari su boobaa li ñuy def mooy su la fiiree ba sonn ñëpp dee ba am nga ñetti ñetti jëkkër yoom génn la rab day taxaw léegi nag xañ na nit ñi day dem ba sa dañ lay tam dëkkal la foo dëkkul jàppal ay gaaf wala leneen fekk jinne moo ne ci ginnaaw boo dajee ku yàlla may xam-xam nag mën na ko dindi dindi bu gaaw nga tàggoog moom sëyaat te sëy ba mën naa yàgg nga am ci jamono ñenn ñi dañuy ëmb mu yàq ko moom la rab da ngay dem ba tollu diggante jigéen ji tollu diggante nii bu mu wëkkati moom dem na hôpital ba nga ko ni mu ci état mu ko defee tuur rab dana koy def su bañee waa su su buggul waa ak noonu la koy yàq waa leen di déclaration di wuti keneen tax yow bu ko defee nag ndax yàgg ngeen yàgg te mënoo am doom day dem ba jàpp ni ci yow la fekk nag rab moo hmm? la wala. jinne ak rab benn lañ. damay dégg rab di dégg jinne. waaw koo dégg mu ci wax rek ci côté boobu ni mooy jinne jinne mooy rab waaye nag dafa am ay waaso. ne hmm. Sénégal ni ni ñu mel ñun ñii nga xam ne pour nga dégg ko rek du dugg sax ci tubaab yeeg naar fii ni ñu amee tukulóor am séeréer am joolaa am fii ay léb. Hmm. langage xeet langage yooyu ak yenn melokaan nit nit ñi wuute kii xees kii gàtt kii ñor rabee jinne yi noonu lañ mel rek mais yëpp benn xeet lañu yàlla mu ngi leen bind ci sawara. ñoom ñaar ñëpp. yëpp xeetu yàlla bu ñu tudd ci alxuraan jinne la wax waxu قل أوحي إلي أنه استمع نبه من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا الجن لا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من تحت رسول الله تنفسوا لا تنفسوا إلا بسلطان الجن يعني الجن لا جن لا بعد ما بدأ يوعى صحيح كيف ما تعرف من الليل الله ما يوحى ndax baatu jinne arab hmm. ñu ñu ñu ñu ñu firi baal min na min na jinne ak nit dégg jinne nit di la wax waaw nit moom wax ko jinne daal jinne la waaye dañ ci beneen aaya uh-huh. hmm. si boobu maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hmm. kon maa jinne arab rab nag mooy of Euh, sëñ Ousmane euh, foofu leer na. Mm. waaye diggante euh, góor ak jigéen. Mm-hmm. maanaam léeg-léeg gannaaw boo ko seetee ba yàlla boo boole leen yéen ñaar mbirum maanaam dëj damay dégg ñu naan da nga ko war a dëj mu toog loolu loolu loolu ci nag. jërëjëf Baye nga ni ah, bàyyi bëgg am beneen góor mu doon génne. su fekkee ni ñagoo sëy boo ko takkee te ñagoo waaye man naa jóg fexe ba dëgëral laa ndaw si lekk peeram ci suuf la doo ko yëg ñoom ñaar ñu gisante bari na ci dëkk bi ci may déglu xam nañ ko jigéen bi am jëkkër am far waxuma xaral rab de faru nit laa wax nit ah, te li koy sabab lii da ngaa ñàkk da takk ndaw si te ñagoo génn di ko jariñoo te te yóbboo ci dara jigéen des koy ñag ba ku fa ñëw waxuma la ku ñëw pour séq ak moom yëf yi du jóg ah moo moo moo waaj. a du jóg de. moo moo waajal ci bopp waajal ba ñëw. moo waajal ba ñëw. seet seet yëngu yëngu du ñëw. seet seet seet. waaw ma ne sax am na am na ci boobu ko defee ci sa soxla ku ñëw ba sox soxlu am ngaa laaj ba sëyeeg moom awra bi day day day day ah, seet seet seet seet sëñ Ousmane wax na lu doy waar de. Hmm. mais mais ah, mais am na ci yoon boo ko defee ànd ak sa soxla. wi sox ko moom. ku sey ku sey mom du genn affaire bi du genn ya ngi mom yëfi mag ma maay mom mais di nga bari ñu la set si nag ndax fi ne loolu dafa la bàjjee yëf yëf du génn ah moo ko moo koy il faut nga def say pexe ba ba ba ba ba génn islam daa wax ne bu amee su amee soxla te def nañ ko lool ba mu dee su buum yi yeewu yëkk xam nga yëkk. yëkk waaw ndax moom lañ koy dóor. moom moom moom moom waaye. am na li mu booyee boo fa àggee rek mu bàyyi. ah waaw léegi mu dem. loolu ba def. waaw waaye waaye waaye nit koo xam ne moom. yàlla da koo natt nag ci muy muy muy muy caaxaan di moom. Mm-hmm. loolu ndax yéen ngeen yëf yu ko mën a. am na yëf yoo xamante ne. bu ngeen ko defee mu bàyyi. bu ñu ko defee ci xunóom xunóom. waaw ak ndox mi nga xamante ni eh, bu ñu yóbboo nit ci armée ba ñu bis. Mm-hmm. ndox moomu noonu. waaw am na am na yëf yu ñu ciy liggéey boo ko ci xasee def moom saa bu ko naanee rek da koy bàyyi. même sang même sàngara bi ak tux nit ku la jaaxal ñu naan liggéey bi du ko du ko yàgg. <laughs> da nga am ndox mi rek am na looy bind boole ko moom bu ko naanee dootu jëfandikoo yooyu da koy bàyyi. mais suñu Ousmane am na ñu bëgg a bàyyi tux bi. da koy bàyyi. tux ak sàngara yëpp am na ci yoon ñaari façon sax am na ci am na ci boo xam ne bu nit ki accès la ñu xam ne léegi pare na pour bàyyi ko mën nañu koo defal loo xam ne ci suuf bi mu baax waaye loolu da xaw a métti ndax boobaa day wàcc ndax li taxal muy tox da koy dindi nicotine bi da nga koy ba mu set. ah waaw noonu lay demee. mais sëñ Ousmane taabaa bi dem. te xam naa ni fi ne ni moom ñiy seetaan bëri na ñoo xam ni ñu ngi mmh. euh, na daw joxe numéro bi. Mmh. waaye dama bëggoon mmh. na ñoo moom fu la dugg na la fa di jaax. jërëjëf Baye Modou loolu moom wax dëgg yàlla am nañ ci ñu bari am de bu ñuy nañ ci dara jàppale nañ ci suñu borom may ay lu bare bari ci ay ay mootu yoo xam te ne jàpp leen lañ ci waaw defal leen secret jaaro yoo xam dañ koy liggéey am na bàgg lu ñuy defal loo xam te ne buñ la ko joxee lu la jafe woon ci dëkk tubaab yi mën na laa yomb ci côté boobu moo am kayit la mm-hmm. wala nga bëgg arrangement liggéey mm-hmm. waaw wala nga nekk koo xam ne danga fay nekk loo am mu dem bàgg bi baax na ak sangat bi na àndal am na ci nag ndomb bu ñuy liggéey boo xam te ni bu ñu ko liggéey ba jox la ko dana yombal mbiru kayit yooyu tamit waaw ñu bëri xam nañ ma ñoom ñooy. ñooy jëflanteeg ñoo xam ne moom. waaw bu ñu seetaan xam ne kii moom. li mu wax dëgg la. seet ndax xam-xam li ñuy wax fii tamit. Ah. maanaam kul xaq wala kaana ñuy wax yëpp yàlla moo tax ñu koy wax ndax ñu yàlla bu wér ndax yàlla bu la defalee tawfeex da koy sant. Hmm. bu dee ci wàllu amul ñu ngi sant suñu borom kon soo dee ba génn rek am yooyu génne di dem amul daa am looy delloosi mooy nasaraan la ci dugg te bokku ci. yi ci dugg léegi te ci. dem ba ñëpp jàppale ay caaxaan kese moo ci nekk nit ñi ay dóorkat la te fekk xam-xam bi xam-xam bu leer la bu sell boo xam ne boo ko weddee rek jëflante la gaa yi mel ni ñun ñu war la yoon bi. si <laughs> Ousmane fi ne moom fi ne ni waxtu wi jeex na tàkk. Mm-hmm. Euh, te xam naa ni xam naa ni xam naa ni deuxième partie. Mm-hmm. boo xam ni gaa yi danañ ko xaar danaa ñëw ci yu bari. Mm-hmm. danaa ñëw ci wàllu salaatu ala nabi. danaa ñëw ci wàllu basma. xam ba sama la da ci may tuuti dana ñew ci walu yu bari bari bari manam xëlwatu sax dana ci ñëwaat ak eh, yow ay ko xam tamit tëju ba ba ba ba liggey taxaw yoy dama ci ñewat euh basma la lolu ci may jërëjëf ma Modou ci bismillah rahman rahim kooku man lañ wax ni ma nga te def téeméeri jotaay te bas ma jeex mom basma ma bi wax na ni bu ma rusuloon yonent bi suma rusul rusuloon yonent saa ci yaxal wa yaxal ci bas na la boo xam dina fees junniy giléem te du jeex moom si naan bas na la mën nañ ci wax bu suba si bismillah rahmaan rahim mooy ismulaay ahsan bi nga xamante ni bu ko nit ki jàppee mën na ko àggal ci suñu borom mën na faj aajoom léegi ci nu mu gën a ñoo ñaan nag dañ ci maye tuuti mhm. loo xamante ni bu ko nit ki defee njàqare bu mu ko fekkal yàlla mën na ko dindi am na ñu koy sax bayti maal bayti maal nag mooy alal yoo xam ne yaa ko moom boo soxlaa dem sàkk ci bas na ci bas na la eh, mooy lim bi nga xam moom laa ci joxe lim la boo xam <laughs> am doole ci bismillah rahmaan rahim la yaakaar naa am na sama benn émission boo fi joxe woon kilifa woo na ni ma mosuma boole te yaa ko ni sama alal ci li ngeen bëgg kooku mooy muhammad ya ci basma ak muhammad ci basma nag ku ko dégg xam naa da nga ne xaq moom mooy li ñuy wax quatre mille quatre cent quatre vingt quatre quatre mille quatre cent quatre cent quatre vingt quatre ci aadu aadu ko ñaan te sell yàlla quatre mooy muhammad ya boo jëlee muhammad miim ji kaat kaat la nga jël xaa bi huit nga jël beneen miim ji kaat deel ji kaat mu ne wax kaat bi quatre cent quatre-vingt-quatre fi mu génne ci bisimilah laa lay wax rek ñun te ñuy léegi ay boo jëlee bisimilah maanaam dix-neuf huruf moo ci ne jur dix-neuf lettres dix-neuf lettres yooyu noonu boo ko yóbboo ci boo ko yóbboo ci fayakun. Mhm. boo ko yóbboo ci kun fayakun. Mhm. foofu lay génne boo jëlee kun fayakun soixante-dix la kun bi faa gi soixante-six moo doon la laa ilaaha illallaah fayakun. boleh boleh boolee ñoom ñaar dafa jox 236 boo ko jëlee gis na nga dara ko ci boo jëlee gis na nga mbir ba 236 mu génne 4484 nga doole ci xaraf basmala yi mu génne la tur bi moom am na tur bu mag ko ci génne day soppi xaalis damay bañ wax ko. ngeen tur bi ci garaafam day ko la waaye ah, boobu bëgg nga ko génne. boobu ëpp naa génne ah, ëpp naa génne yow li nga joxe ci 4484 doy na. waaw eh, sëñ Ousmane ku la bëgg a jot tamit sa ku ko bëgg a jot ñu ngi fii ci R100 Thiès. yaa ngi ci R100 Thiès. la fi nekk wala. waaw lu ci gën a bari nag fii nekk léeg-léeg nekk Dakar mais li ci gën a bari nag ñu ngi Thiès ku ñu làmb moom fekk ñu Thiès. ah wala nga jël numéro bi rek. waxal. Euh, double zéro deux cent vingt double zéro deux cent vingt et un. soixante dix sept. soixante dix sept. cinq cent soixante sept. quatre vingt dix sept. quatre vingt dix sept. dix neuf dix neuf. wala jël expresso bi. jëlal expresso bi bindal. double zéro. double zéro. deux cent vingt un. deux cent vingt et un. soixante dix. soixante dix. trois cent cinq. trois cent cinq. quatre vingt et un. quatre vingt et un. trois. trente trois. mooy numéro yi. mooy numéro yi. waaw sa kàddu goo xam tàggu bu du tàggu. waa di santaat yàlla bu baax di julliwaat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax yàlla moo ni yaa ayyuhal lazina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima yéen ñi gëm yàlla julli leen ci moom kon ñu ngi wax allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim di ziyaaraat mbokk taalibe yëpp ak fu ñu mën di ne waaye di jaajëfalaat bu baax Baye Modou Mbow ñu ngi lay nuyu bu baax tamit di la ñaanal yàlla guddal sa fan te dolli wér kontaan nañ bu baax. mais mais sëñ Ousmane seen bi. Mhm. Nouroullahi Sam mhm. TV. moom i njëriñ lan la. des fiy jàngale bépp xeetu xam-xam bu nit soxla rek léeg-léeg li mënta jàll ci vidéo yi mais privé la da nga ñu woon ñu leeral la. ku ku ku woote nga leeral. ku woote incha allah bu ñu amee jot leeral la am nañ tamit site. <laughs> Euh, am nañ benn site boo xam te ne site site site boo xam site internet ñu ngi koy liggéey moom mooy www.nouroulahislamtv.sn boo tamit site la boo xam te ne yenn ci dugg waaye li gën a wér daal mooy ku soxla rek ñuy woo. kon daal sëñ Ousmane moom école la moom. waaw macha allah <laughs> eh, mbokk mi ngi noonu eh, sëñ Ousmane Sam Nouroullahi lan dalaloon tey eh, fii ci Nouroullahi Sam TV ñu fekk si woon ko fii ci Thiès R100 numéro yaa ngi noonu yow mi nga xam ni da ngaa jaaxle yow mi nga xam ni bëgg nga ku la li si xaaral yow mi nga xam ni am nga aajo te aajo jooju bëgg mu faju sëñ Ousmane daal ubbil na la yi woo ko soo ko woowee li nga bëgg di ko am incha allah dama leen di jox dig daje. beneen détail beneen numéro ak sëñ Ousmane Nouroullah euh, gars yi ci bi émission wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu